père maa nga baal ma fàttali ma tur bi tuuti. tëgg màngaan laa tudd ma tëgg laa tudd nekk dirigeant ci école lit Balla Gaye waaw. sa ak Balla Gaye lan la woon. Balla sama diggante ak moom mbokk la ndax yaayu Balla Gaye ak sama papa ñoo bokk ndey ak baay sama papa moo topp ci Balla Gaye Balla Gaye nag nit ku baax la woon yàlla def na indi na ko ci duniya def na fi mission. mission boobu moo doon ci wàllu bëri am na xale yu bëri yoo xam ne ci loxoom lañu jaar ba yàlla dénk leen teraanga du dëgg li ci nekk nag mooy ni dundu amee noonu la dee amee yàlla nag moom na ko li ci nekk ñu ñaanal ko rekk yàlla xare ko àjjana waaw yan fàttaliku nga ma mën a fàttali ci diggante yow ak moom jëflante yi nga xamante ne daan ngeen ko jëf. non man ak moom ci lu ñuy jëflante mooy doomu bàjjan doomu nijaay tooñante foog ree ndax senegal li mu am bëriwul traitoire yu ko am ndax doomu bàjjan ak doomu nijaay ak diggante kal ndax boo gisoon séeréer tey nga wax ko dara mu metti ko rek boo ne ko mën laa rek xol bi sedd boo gisoon joolaa tey mu wax la lu la metti nga ne ko mën séeréer laa. ñun culture boobu ñu am moo tax Sénégal développé ba affaire ethnie amu fi waaw diggante doomu bàjjan ak doomu nijaay comme lu olof yi wax dëkk boo dem amuloo doomu bàjjan amuloo doomu nijaay xamal ni ngay taxawee waaw. génnum am nan nga ko yëgee ak ci lan la la fekk. boobu man maa ngi fii rek maa ngi sama sama kër dama jekk ba saaga nekk sama néeg jekk ba càgg sama benn dëkkandoo daal di ñëw ni ma yow yëgoo lu xew sa kër mbokk yi ma ñëw ñu ne ma Balla gay génn na àdduna waaye ci loolu tamit dañ ciy sant yàlla ndax moom am na doomam yu gaañu te moo leen mag du dëgg yàlla dimmali na ko ndax yàlla ku mu dimbali. mooy Sénégal gi nu mu toll amul kenn ku yewu ci Sénégal wala ci àdduna ci tuddloo xëyuloo tudd turu Balla Gaye ndax yenn saa yi gars werante ni Balla Gaye 2 te Balla Gaye 2 moo ko liggéey ba mu nekk champion ndax euh, àdduna dafa am lenn lu ci nit nekk mooy sampion benn nit du ko liggéey yonent bi mooy gën gi mbindéef waaye dafa am ñu ko yàlla boole leen mooy ñoom Umar ñoom Ousmane ñoom Babacar ku nekk am na lu mu représenté ci pouvoir bi mooy pouvoiru Balla gay 2 bi ku nekk daf ci jàpp moom mu mottali ak li yàlla dogal ci moom destin am nit luy destin rek bala moo génn àdduna dina dina lépp dina complété ci moom loolu rek moom la ñu xamoon ci Balla Gaye mu nekk nit ku baax nit ku modeste ndax dañ booy dañ daan toog benn côté ba caaga ñu ni kaleen dem pàkk ba waaye tooñu Père Balla muy foog ñoom di reew ak ñoom booy bi xam na li may wax mu nekk nit koo xam ni kilifa la waane kilifa googu dafa dëdd woon àdduna ndax bu dëdduwul woon àdduna comme ni Sénégal mel nga xam ne boo jaayee sa ngor am ay immeuble bon bu jaayoon ngorom ndax ku dem ba président ab lay Wade woolu la palais ak sa écrit ministre ponkal yi nekk ci senegal yëpp xam la kenn mësu laa joxañ baaraam ni diwkat dem na fii kii la àndaloon ak kii la àndaloon nga nekk nit ko modeste def ñëpp ñuy sa njaboot def ñëpp ñuy sa mbokk kooku wax dëgg yàlla nit ko baax nga jërëjëf ok.